Assalamualaikum bokk internet bu Guédiawaye Info TV ñi ngi leen di nuyu di leen ziar tay ñi ngi sét ci ben grand bo xam te ni grand lune euh, mu don ko xam ko présenter au niveau de Guédiawaye mu doon itam nek un fidèle compagnon ben champion boo xam champion bu mag la grand lune ñu sét ci ko tay fekk ko fi nga xamante tay moy diwanam bërebu bërëbu kayam fas waxtaan ak mom ci digëntem ak champion bobu itam ay jaar-jaaram nga xam ko ak champion bobu waxtaan ak mom également tamit ci lamb kon avant tout rek ñu bayiko mu daal di nuyu daal di présenter wu grand lune ñi ngi lay ziar di la nuyu di la nuyu euh, du nuyu ñëpp di leen wax kontaan naa si sees bi. Mhm. ah grand su la laajoon tey kan mooy grand lune. waaw lune la lune benn gaañaan boo xam ne instant fu ñëpp xamee nañ ko mbër euh, am na am na ñoo xam ne tey instant fu ñu toll nii euh, sama diggante ak Balla ñëpp tey ñëpp xam nañ ko tey sama diggante ak Balla yooyu mënu ma wax sax parce que tey. Balla jaar nañ fo xamne mel nañ lo xamne tay ni euh mënu mo ci si sax lu bari lune mom ben lune la ñëpp xamé ko ci Balla hmm bu lolou wéso ñu gis da nga nek kon grand bo am ten aussi da nga am passion ci lamb da nga bëgg lamb lan mo waral passion bobu ci lamb wa lamb lamb lamb mën naani ni sax euh Gaye moo tax mo bëgg lamb parce que tay man buma ma lamb yalla ak jëm Balla la Balla Gaye moo tax ma euh, euh, bëgg lamb parce que làmb tamit euh, bëgg ko bëgg ko yombul mais Balla Gaye ñu bari moo tax ñu bëgg làmb Balla Gaye tax ma bëgg làmb waaw mhm. ah, Balla moo tax nga bëgg làmb nga tudd ko mu nekk tamit un grand champion ko am ten kenn doot ko présenté tey ban genre relation nga séq ak moom waaw Balla sama xarit la ñu yàgg fowandoo hmm, fowandoo instant fu ñu doon yàlla xiir ko si bëre yàlla boole ñu mu doon nit ku baax nit ko simple nit ku fonk ay xaritam nit ku xam lu ko war si ay xaritam loolu mooy suñu relation mu téye nag relation bi xeebu benn yoon relation boobu lañ seeg parce que ku la yëg rek la sonal ah waaw ku la yëg rek moo la sonal. Mhm. am na solo mais bu ñu déggee say kàddu sax yow doo faral di wax Balla Gaye Omar ngay wax loolu wane rek yàgg nga am moom wóllëreem nga te xam nga ko bu baax tey lan nga ñu mun a wax ci moom. waaw Balla li mu mën si wax bari na xam nga Balla Gaye tey li ma mën a wax si moom sax tey amaan ñu bari mën nañ ko ba ban mën a wax si moom parce que am nañ suñu jaar lu bari parce que man ak Balla Gaye dañoo fowandoo yàlla yàlla yàlla xiir ko si làmb yàlla def man euh, tamit mu tax ma bëgg làmb euh, aussi tamit moom mu bëgg làmb jox làmb ak cër tax tamit ñu bëri tey Balla bu bëree sax bu bëree rek da ngay xam ni da ngay yëg ni làmb am na tey Balla ñu bari ñu bari dañuy yàkkamti mu bëre parce que sans Balla Gaye si làmb làmb mun naa ni mun na bañ a dem parce que tey boo toogee nii sa déggatoo làmb maanaam sentirul too caxtal làmb parce que Balla moo bëri Balla Gaye dafa bokk si làmb parce que tey mun naa ni Balla Gaye mooy làmb Balla gay mooy làmb Balla mooy bëre tey euh, dëkk bi yëpp sentir ni làmb am na daf kan nga gis euh, stade amitié ñaata nit dafa bëre Balla Gaye bu bëree ni stade bu del musu mas sax maanaam loolu masu Sénégal lañ ko lañ ko si lañ ko si lañ koy séentoo mais Balla Gaye tey bu bëree maanaam stade bi nit ñi sax dañuy mujjee ñibbi kon Balla mooy làmb nañ xam ne Balla Gaye dafa bokk si làmb laal yàlla moo ko may te eh, yàlla bu mayee nit benn affaire nit ñi dañ koy nangul te xam ne yàlla mooy maye. Mhm. loolu am na solo mais bu weesoo tey mbër mi Balla bu demee ci làmb ji mbër lay am mais bu weesoo loolu mu ñëw tey daal di nekk ak nit ñi en tant que personnage bu Balla Gaye nan lay dundee ak ay nitam. waaw Balla dafa nekk nit ku simple koo xam ni euh, maanaam euh, fëq yóbbu ko te mu xam ay nitu démbam parce que euh, Balla dafa am liggéeyu ndey te loolu da nga koy xool si yaayam parce que tey ween dafa am solo parce que yaayam tey. boo seeloo dafa nekk nit ku baax yàlla tey mun nga dugg kër Balla Gaye tey bu ñu la kii yaay Balla Gaye la danga naan déedéet parce que maire boo xam ne bëggul àdduna maire bi xamul or doo gis muy dawal otam te doom mën na ko macha allah maire bi leen rek nga koy xamee mooy aji jot mu dem aji màkka kon yaay ba tey Balla nu mu mel rek si yaayam la ko jëlee maire bu simple Balla dafa simple Balla bu daanee fii lay njëkk ñëw Balla Gaye tey xale mun na ko mun na ko yàggal si mbedd mi sax Euh, ñoddiwul li nit ñi ju ñoddi Balla Gaye pour moom du star parce que dafa simple ba pare fonk ay xaritam Balla Gaye euh, macha allah lu mu am si làmb rek lu mu am si làmb rek maanaam xolam moo ko may parce que xol mooy nit parce que des fois yàlla day fay xol yàlla yàlla euh, dafa fay Balla Gaye xolam dafa am yëg-yëg fonk ay xaritam xeebu leen benn yoon. Mhm. waaw lu mu am xolam moo ko may comme ni nga ko waxee mais bu leen weesoo grand nga am benn événement bam tan jot nga ko dund mooy diggante Balla Gaye 2 ak euh, mu nekkoon en 2012 ne sibiroon nga ko ci mun naan mu nekkoon un choc terrible tey moment dafa def instant fi mu ñu bokk fanaan parce que Balla Gaye amee combat man ak moom ñooy fanaan ñu xëy yàlla def instant ñu nekk si préparation war a xëy dem Kër Massar ñu ànd ba ñu àndee ba Kër Massar Euh, li yàlla def ndogal ñëw ma def choc mu nekk soog boo xam ne soog bu metti la choc boo xam ne dëkk bi yëpp ko dëkk bi yëpp ko ko mettitlu te choc boo xam ne tamit wéetu si benn yoon mu taxaw ma si mu metti ko trop Balla Gaye ba muy sax ba mu yëgee sama choc sax lu ko gën lu ko gën a si àddunaam loolu si la bokk euh, mu doon nit koo xam ne tamit sérieusement parler foofu bu ma fay wax sax sama xol day tooy parce que Balla Gaye yër yërmande bu nekk si moom tey nit nekk nga ak nit tey dangay dëkk ak nit sax nga am jafe-jafe ngeen bokk ndey ak baay mu seetaan la te amaan na mun na la taxaw mun na la mun na mun mun na la taxaw taxaw boo xam ne instant fu ñu toll nii mais mun na ko si bañ a fekk mais Balla Gaye dafa mel ni ku bokk ak man ndey ak baay seetaan benn lépp loo xam ne sama soog bi war na ko rek Balla Gaye def na ko si seetaan moom muy àllam muy léppam euh, wax dëgg yàlla Euh, Balla Gaye moom mënu ma wax si moom lu bari parce que soog boobu métti woon na métti boo xam ne euh, euh, parce que dañ ne nit moom jafe boo nekkee si ay jafe-jafe si ngay xam say nit si ngay xam say mbokk si ngay xam say am di jàmm jour boobu nag xam naa ni Balla Gaye mu toll si man sama soog boobu laa laa laa Balla joo xam ne tey Balla ñun ñi xaritam wéetuñu benn yoon te sama soog boobu si laa ko jàppee ba tey ji nii te loolu duma ko fàtte amul lu ma defalul amul lu ba France sax Balla Gaye jour bi ma accidenté si le même jour la waa bureau passeport ñëw bi rek carte d'identité dem fekk ma hôpital di ma defal rien que rek pour yóbbu ma France kon nit kooku nit mënu ko fay lépp Balla Gaye une semaine chaque une semaine cent mille francs lay lay jël teg si taal bi chaque une semaine nekk naa hôpital trois mois chaque jour que jëfee loolu lay def sama dara manqué wut chaque jour que Dieu fait ay keesi boisson lay indi si hôpital bi dara manqué wu ma man hôpital bi dafa mel ni man mag man ak Balla ñoo nekkoon si hôpital bi chaque saa yu xëyee jël téléphone am xool si lu ma nekk ba mu bëree comme ni mu koy defee nii sama place saa yi bëree ba mu bëree si lundi bi tamit hôpital la njëkk a ñëw seesi ma kon kooku awma ma fayam kon man soog boobu tey mun naa ni dund naa ko dunduma ko parce que wéetu si benn yoon mhm. waaw wéetloo ci benn yoon mais su ma la déggee kon traitement bi dafa doon lu am ten fii lañ ko faje woon wala du à moment donné dañ la yóbbu France nga dem daal di eggali faju ji foofu non moment boobu noonu xam nga médecin yi rek mooy loolu moo mm. baa booba euh, instant boobu noonu soog dëkk yëpp yëg nañ ko mu doon affaire bu grave yi taxaw ne dañ ma yóbbu France mais médecin bi moo mujj obligé ne kenn du ma yóbbu moom mun na ma faj ñi ñu wax gars yi euh, ministre de la santé woote expliqué mu ne mun na faj mu jël engagement am euh, ñu mujj maa fajee fii. moom tamit mu nekk médecin boo xam ne sérieusement médecin bu yaatu docteur Diop lañu koy wax médecin bu baax médecin boo xam ne tamit euh, seetaanuma benn yoon euh, fii lañ ma mujjee fajee. Mm-hmm. am na solo grand mais aussi lu mel noonu daal lay dal donc nga ànd ak mbër di woo di di waaj di préparer bésam forcément dina am ay réaction yu wute ci côté say mbokk ñi nga xam te ne ñooy mbokk seen réaction lan la woon. waaw ah, samay réaction dañoo xam ne ndogal yàlla rek parce que ndogal fu ne lay ñëwee ndogal mun na la danee fu ne parce que nit euh, jóge na fi sax di am fu mu dem yàlla yamale ko fa samay mbokk tamit ñu nekk nit ñu gëm yàlla ñoo xam ne tey euh, ñoom dañoo jàpp ne lépp rek lu am rek yàlla sunu borom la te sérieusement parle xam nga li gënoon ñaaw mooy tey euh, loolu dal ma si bisam ki nga xam ne tey moo ma taxoon jóg seetaan ma xam nga àdduna du alal parce que tay ñun lool lool lool lañu ñu tay nit dina xey sax di la jox bu xey joxu la nga méré ko ci te nonu noonu Balla Gaye daf ma wételi si alam wételi ma ci jëmam sa yu ma xey gis ko parce que moment bobu ngay xam té moment bobu la xam parce que nit di nga and ak mom té do ko xam parce que xol li xol xol xol li ci nek dafa sori parce que nit mo lëndëm té nit nit mëno ko xam parce que nit mu ngok and ak mom surtout ma si banex mëno ko xam ben yoon parce que nit mo lëndëm mais sama soog boobu si laa xamee Balla gay wéetalu wéet wéetuma si benn yoon muy alal la muy lépp ba dëkk bi yëpp xam ko parce que tey Balla Gaye ba moment bii nii mii nii nii nii chaque jour ma xëyee gis ko kon kooku dafa gore kooku awma lu may wax si moom lu dul di ko ñaanal di ko ñaanal te xam ni te xam ne lu ne dina ko am si làmb parce que xolam moo rëy Balla Gaye macha allah euh, ñun ay xaritam ñun yëg nañ sentir nañ suñu bopp si moom parce que Balla Gaye tabaski sax camion xar lay wàcce xarit bu ne mu jël jox la xar ñepp amul ko xamni dula jox jël alalam du ko si boole ba ñeneen ño xamni ni bokku ñu ci ñun kon euh, yi mbokk leen rek lañ mëna réagir moy di ko sant di ko gërëm te xam ni euh, Balla Gaye macha allah lepp lu ko war ci man def nako mhm. waaw combat aussi bi nga xamanteni mom mi ngi ko doon beure mi ngi la fekk euh, sûrement hôpital bi nga yëgee ni Balla gay de dan na ni lan nga yek moment yoy waaw bo moment bobu nonu parce que bay Balla Gaye di bëri moment boobu moom ma fekk bloc mm, instant dama ximilu ko rek ba ma ximilu ko gars yi bañ ma bañ ma opéré ba pare ma ximilu ko rek ñu ne ma Balla Gaye daan na ni man xamoon naa ni Balla Gaye day daan Yékini parce gëm-gëm googu noonu laa amoon te gëm-gëm googu da ko am man Balla Gaye dama sentiroon day daan Yékini euh, mu nekk loo xam ne nag mu nekkoon bànneex dëgg la. parce que bànneex ak nakar ñooy na bien vrai que combat boobu am naa si tolof tolof nattu nattu na nattu dab ma si mais amaane tamit euh, bànneex tamit fekk si wàll ma si parce que li ma ko yéene woon si àdduna mooy mu daan nii te amoon na gëm-gëm boobu te amoon naa gëm-gëm boobu. Balla Gaye zéro mooy Balla mooy nit ki nga xam ne tey buy bëre pression amu ko Balla Gaye heure bu ko neex play ba ñoo day play ba 4 heures du tëdd. amul combat boo xam ne sax yooyu ànd ak moom pression bi ñu si am moom du ko si am euh, jour boobu mooy jour bi gën a neex sama jour jour boobu la si jour boobu parce que euh, mënoon na gën a métti tey mënoon naa acci jour boobu accident boobu noonu euh, dab na ma mais mu mu nekk accident boo xam ne tamit mun na gënoon metti parce que tey bu fekkoon Yékini daan na Balla Gaye si lay gën a metti mais yàlla ak suturaam yàlla dafa bari sutura te bu boobaa parce que Sénégal lañ nekk Sénégal nit ñi nit ñi dañuy gaafal nit ñi dañuy wax nit ñi dañuy wax loo xam ne sax euh, xamuñu ko mais yàlla ak suturaam tey bu Balla Gaye daan woon su dina ñaaw trop mais di sant yàlla sunu borom ba mu suturaalee Balla Gaye ba jour boobu noonu yàlla may ko si ndam wax dëgg yàlla li ma gën a neex jour boobu tamit euh, sama àdduna jour boobu si la bokk mhm. waaw kon nañ jàpp ne daal moment yooyu doon na moment yoo xam te taxaw na la ci taxaw bu am solo taxaw bi ci war. non ni ma si taxawee sa mënu ma ko wax sama dërëm demu si dërëmu lépp loo xam ni rek war nag si rek moo ko si def lépp Balla lépp loo xam ni rek amul loo koy laaj si loolu mu mu la loo ko si laaj ak loo ko si laaj sax da ko si def mbër dama see taxaw sérieusement wéetu ma si benn yoon lépp moom la lépp moom kese la du keneen. Mhm. ki def sok bi sax ki nga xamne tay ki nga xamne sax tay mo indi sok bobu mo ma sax amul lu mu si def lu dul deug la nit ku bax la mais bala gay kep kuy def sax danaan la soxlo ma la nga def dar ba sama xarit amna sama ben xarit mu nan lune lune la tuddu tay koku tamit aussi jour bobu lay parce que xarit dafa jafe mais limu su don def sax tay dafa dem bala gay nak limu mu def waxuma ma delo lako lim nako ko man euh, loolu ma si def dama ko see war a def parce que lu Lune Seck sama xarit la Balla Gaye na ko déedéet Lune Seck bañ kooku tamit euh, nit ku goreeg noonu kooku Lune Aline Diop lañ koy wax euh, wax dëgg yàlla wéetuma si benn yoon sérieusement parler. waaw mhm. ah, mu doon kàddu yu am solo bu loolu weesoo grand gris barki Demba Ndiaye ki nga xamante ne mooy Balla Gaye 2. Euh, këram daal lañ leen dajale ak ñi nga xamante ne tey ñoom la seexal école lit Balla ku ci mel ñoom Elton ñoom Lamine Golo ak ñoom Fils waaw xam nga Balla Gaye mosul xuloo kenn Balla Gaye du xuloo kenn Balla du jàppal Balla dafa yor xol boo xam ne nit ñi ñoo ko xamul Balla Gaye nit nag nit la parce que nit ku dul mer amut mais Balla Gaye xulawul ak kenn parce que euh, am ñu ñëpp benn lañ te man loolu dama si dama dama koy rafetlu parce que ñun géejawaay ñun ñoo ko bokk te amuñ lu dul géejawaay euh, nañ xam ni ñun ñëpp ñoo bokk géejawaay te nañuy rafetal parce que at na amul solo man Balla gay wax deug ya bëgg na ko bëgg go xamne lepp lu way wax ci mom rek daf may metti te te wax deug yalla ba déggé tamit gis te loolu tamit euh, rafetlu naa ko te kontaan naa si nañ xamni ni tamit euh, euh, ñun ñëpp ben lañ te ñuy éviter yenn yi te nga xamni ne Balla de musul xippé musul wax lu ñaaw ci ben doomu adama parce que man mun naa man lool mun naa ko mun naa ko ko mun naa ko ko Euh, parce que nit moom nekk ak nit xam jikkoom moo ko gën Balla Gaye yéenewul kenn lu dul jàmm nañ ànd te yàlla tax te xam ne fii lépp dafiy jeex lépp day jeex ku nekk rek amoon nga say jamono nañ xam ne lu dul jeex amul yàlla rek moo dul jeex waaw loolu rek laa bugg a xam nit ñi nañ te jàmm parce que yéene néeg la borom a si fanaan nañ yéeneente jàmm te xam ne yoo yéene sa morom rek amaana mun nga ko see jiitu muy lu baax muy lu bon. nañ yéeneente jàmm. kàddu yi am na solo grand sa kàddu gu mujj lan ngay tàggatoo ak bon message ngay lancé à l'endroit de la population sénégalaise particulièrement à la population guédiawayoise. waaw li may lancé daal mooy avant tout damay jaale Balla Gaye si magam ji génn àdduna naan ko sigil ndigaale te xam ni àdduna nii la chaque jour yàlla dafa ñuy wan àdduna te Marème moom kenn tiitalu ko parce que amoon nga mag ju baax parce que loolu say yaay parce que nee la ween dafa am solo lu baax rek lay am te lu baax rek lay jur amul doomam boo gis boo xam ne tey danga koy musi musi Salif muy Ibrahima muy Mare mi nga xam ne moo génn àdduna te dañ koy ñaanal yàlla sunu borom yàlla yërëm ko eh, eh, fi mu jóge gënal ko eh, fi mu fi mu jëm sëñ Touba mi nga xam ne tey moom lañu yaakaar taxawu ko teeru ko si àdduna yi gën a kawe naan Balla Gaye itam di courage àdduna nii la di ko ñaanal te di wax tamit euh, Sénégalais yëpp tamit nañ ko ñaanal te xam ni magom bu baax magam ju mën a sëy sëyantu rek day sëy te yàlla tax moo génn na di ko jaale ñëpp nag ñëpp ñoo xam ne rek jege nañ Balla Gaye rek ak mbokk Balla Gaye maa ngi leen koy jaal te du wax nit ñi tamit nañ xam ne géejawaay ñoo ko bokk ñu bàyyi wax yi ñaayu te ñi nga xam ne tamit ñooy yor seen micro ñu xam li ñuy li ñuy li ñuy ñu xam ñi ñuy dékk micro ñi nga xam ne tey dañuy wax wax joo xam ne mun na yàq lu bari parce que ah, wax wax la rek buy xam après fu muy yam parce que euh, mun nga wax loo xam ne ëllëg après mun na lay topp nañuy yéeneente jàmm ñuy wax wax ju rafet euh, di gërëm ñëpp di leen gërëm yeen ñi tamit parce que yéen defar rek moo leen tax a jóg parce que man ay wax ay réseaux sociaux sax bugguma ko mais yéen. Yen da ngeen bax te yéen lu rafet rek do leen dekk kenn ko xamni day wax waxtu ñaaw te te ce li ngeen japp xamna ni dina jëm kanam parce que lu bax lu bax rek koy fay di gërëm ñep di sante sama soxna Yaasin ak sama goro euh, sama xarit mbay lun di gërëm Balla gay bu bax diko wax ni tamit lu bax rek ngay am parce que yow benn mbeur bañ la mbeur yep nga bëgg man fekk na ba taay mbër yi nga xam chaque jour ko jëfee dañuy indi sax ay facture courant ne leen seen kër dañ leen couper courant nga jël xaalis jox leen ne dama leen fay courant loolu mako tek sama beut mbeur yu beuri amul kenn ko xam man pour man Balla Gaye benn mbër bañu ko parce que amul kumu dul taxaw day taxaw mbeur taxaw ñepp Balla Gaye munul yor dara ci otoom lu mu yor nit soxla ko mu jël ko jox ko di gërëm ñepp di gërëm sama ben sœur bo xam tay mu naan moy sama yaay associam sama mama ñoom ñëpp mooy sama mama sama booy yi ma nekkal ñëpp maa ngi leen di gërëm di xam ni tamit euh, yàlla na jàmm yàgg. Mhm. waaw bokk internet yi loolu moo doon waxtaan bu am euh, solo mu doon waxtaan bu am solo une discussion pleine d'enseignement comme ni ma ko faral di waxee mu daal di un message aussi à l'endroit de la population guédiawayoise woote jàmm yëpp daal di booloo nekk jàmm parce que ñun ñoo bokk même couleur bi ñuy défendre mu doon aussi lu am solo euh, di leen sant di leen gërëm di leen euh, sant bu baax aussi di du ma faat tamit suma technicien nga xam moy ne mooy l'incontournable Bégaye Koundoul euh, di leen jaajëfal bu baax merci